asalaamualeykum mbooloo mi balaa may wax ci tey bi dama leen di indil message yu président Ousmane Sonko. mu ngi seetaan en direct lépp li xew fii. waaye nag xolam neexul te war ngeen xam lu tax. nee dafa bëgg képp koo xam ne am na lu tuuti loo ko dugal sa xol ngalawaay leader bu taxaw fii na nga ko tàccu te bu ko yuuxu kan ngeen di topp kan ngeen di topp kon def leen li mu wax ndax mooy rafetal mbokk yi c'est un prisonnier errant qui vous parle aujourd'hui ndax xam ngeen ne Macky Sall dafa décidé ne kenn du wax déet ci mim réew moo tax mu jàpp lu ma 364 détenus politiques ñii mu tëj leen ñii mu isolé leen ñii mu door leen contrôle judiciaire ñenn ñi mu delloo leen ci jaam ñu mel ni man ngeen gis ko nii waaye lu metti yàggul ndax bi ñu sumb xeex bi xamoon na ne suñu bakkan mën nañ ko ci ñàkk donc teg kaso du ci dara encore une fois na ñëpp pare bu mënee na tabax ay kasoy kasoy kaso. jërëjëf. leneen li nga xam ne bëgg naa ci daaneel. mooy mbokk yi kenn moodul bokk ndax warul bokk mënul bokk te du bokk mi président Macky Sall. waaye ñëpp ñi fi des dinañu bokk ndax sénégalais yi ñoo war a tànnal seen bopp ki leen di jiite président so Macky Sall mënu leen ko tànnal maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf.